abonnewul ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des saa su ne jàmm seen seen kii di Ngouda Mboup yëkkati na ay kàddu daldi di xamal sénégalais yi ne lu sabab réewu Sénégal bés bu ñu xëyee sénégalais bi di dund lu metti te bépp rapport bu jëm ci croissance économique gu Sénégal boobee bu ñëwee danaan Sénégal ak croissance bu baax la amee. kii di Ngouda Mboup ne ñoo ngi à deux mois des élections ci réewu Sénégal te lu ëpp ci jeunes yi seen rêve ak lu ñuy jéem a tenter moom mooy ñu daal di génn réewu Sénégal daal di dem Europe wala ñu dem Amérique te ne li ni mel lu ko sabab moom mooy dundun gu métti bu jeunes yi di dund ci réew mi te ne loolee terewul bépp rapport bu jëm ci croissance économique ci réew mi di Sénégal li ñu mujjee amal ci dernière année yi dañoo wax ko ne croissance économique u Sénégal croissance bu baax la loole xaajul bay dëppoog lu am ndax ne Sénégal croissance économique am croissance bu endogène la croissance bu extraverti la maanaam ne buñ ne Sénégal am na xaalis gu bëri gu dugg ci nafa économique am ne lu ëpp ci xaalis boobee réewu Sénégal moomu ko waaye entreprise étrangères yi ñoom ñoo ko daal di moom ci réew mi di Sénégal ne entreprise yu mel ni que Elton yu mel ni que Orange yu mel ni que Total ñooñee ñooy ëpp chiffre d'affaires bu ñuy gañee ci réew mi di Sénégal te ne bu ñuy amoon rapport daal di koy jëmal ci croissance économique Sénégal dañ ciy boole chiffre d'affaires boobee nga xam ne ne ay entreprises étrangères ñoom ñoo ko moom ci réew mii di Sénégal ne li ni mel nag moom mooy nax ñu bëri buñ dikkee naan croissance daa am ci réew mii di Sénégal nekk croissance boobee croissance bu endogène la sénégalais yi luñ ci moom lu néew la ne tamit ñuy amal rapport yooye nga xam ne dañ koy def ci réew mi di Sénégal ñu ci bëri ay entreprise étrangère lañ wala ay firme internationale te ne ñooñee seen intérêt moom mooy entreprise étrangère yi daal di émerger ci réew mi di Sénégal loolee moom moo tax ñu leen di defal ab bilan bu positif daal di koy yokk ci croissance économique gu Sénégal bu ko defee gouvernement bi di génn di layalee loolee waaye en réalité ab croissance bu endogène lañ am ci réew mii di Sénégal kàddu yu ni mel la kii di Ngouda Mboup daal di jël daal di koy jëmale ci croissance économique bu Sénégal Abonnez-vous Abonnez-vous ci sunu seen FTTV Sénégal la chaîne des patriotes Ça se et bien,